alhamdulillah boo ko déggee baatu sant yàlla la jox leen ma ñu wër ba sonn boo ko gëmul dégg nga ko ay client wam ñoo am mbégte ak contentement di wane seen ay résultat kabine oustaz Alioune Fall preuve bu dul preuve jinne rek wane nan ko fa faj na nit ku ne soo ko waxee mu ni du man yàlla la preuve bi nag preuve grossesse la wolof di ko wax ëmb yàlla sunu borom jaarale ko ci loxo ku baax kii di oustaz Alioune fu ko preuve fekk fa lay sujjoot magal yalla soko waxe muni jangoro ni jàngoro yi may jëlee si jaam yi du man waye yalla la inshallah katanu borom bi gis nga legui la def euh, test bi yalla def bëgguma ko woné motax tax ma wane loxoom client yi ni tok diko sédé katanu borom bi ci ëndu wi fi la ko defee woon léegi bi iznillahi taala nañ sant yalla yalla rek la nak duma ci dara ki fi amé ndam yalla la ki fi amé ndam yalla la jëf barakallahu fiik